moo bàyyiwoo ko ci sëriñ bi muy sàkku ci mboolem taalib yi nga xamante ni dañ daan julli si te bu noppee ci jullee bay dellu këram ñu topp ci oto bi def am ndiiraan di yooxaloo ak di coow donte ne ay ñaan la ku ci nekk na ko fas ci xolam te bañ a yëkkati kàddu gi wala ngay topp ci oto bi ndax loolu lépp dëppoowut ak ay teggin yi nga xamante ni bis koy dimaale ci teg gi kuy dem ci jàkka jaamu yàlla ak dal la àndal kon ñu daan def loolu nañ ko bàyyi te ñu ànd ko dal te sëriñ bi bu dikkee ba ni muy delloo kenn bañ a toppati ci otom bi.